bi am temps ci réew mi si bi temps yi réew mi doy na waar de. trop insécurité bi am. faat bakkan yi bëri na ngi déggaat démb beneen faat bakkan bu am fii ci Grand Yoff ak ki disparaître tamit foofee ca baax ñi mais bu ñu taxawee ci bi nga xamante ni. Hmm. depuis bi mu amee ba tey muy période yu màggal bi ngi découvrir li nga xamante ni moom moo di seen corps hmm. muy fecckat boobu di Aziz Dabala ak keneen ku mu dëkkaloon di Waly donc gis nga ni depuis lors Sénégalais yi sax dañoo ci benn psychose temps yi moom euh, benn fit dalatul mm-hmm. booba tey tamit ku ci nekk mu ngi topp euh, ci lu mu gën a jege li nga xamante ni moom moo di enquête bi mm-hmm. donte ni moom nee naa temps yi moom ñëpp ay enquêteur lañ tiktok bi moom ak yenn réseaux sociaux yi moom lu ba pare loolu dafay gën sonal ñi nga xamante ñoom ñooy askan bi parce que da ngay zappe euh, scroller gis version bi scroller waat gis beneen version loolu induire la en erreur voilà te loolu du yoon donc yooyu yëpp tey jii wax jooju yëpp ci am tey noo ko jàngatee laata ñuy yegg si tey ci li leen placé sous mandat de dépôt waaw d'abord ñaanal ñi ñàkk seen bakken mhm. suuf oyof seen kaw. amiin amiin amiin faat bakken bi suñu borom yemale ko fi. Mhm. mais malheureusement. Mhm. c'était prévisible ah. boo xoolee man damay wax ni c'est les prémices d'une d'une société en mutation. man dama gëm ni société sénégalaise moo nekk en mutation. et que yi am fan yi feewu meurtre yi wala jéey yi am. prémisse la rek yu ñuy annoncé. fii société sénégalaise jëm penda bu dee yaa ngay ku yàgg naa la wax benn moo la bombe jeune moo nekk di wone ay melokaanam gis nga fee nga dajale lii yëpp lenn rek lay wane mooy suñu suñu société bi daf feebar mhm. lu tax société bi feebar mooy dafa dem ba nekk société boo xam ne dafa ñàkk ay repère mhm. mbir bu ñàkkee repère rek dafay désorienté te bu désorienté rek mhm. fi mu jëm du baax muy oto muy lépp lu mu munti doon société Sénégal mooy société boo xam depuis un bon bout temps li nekkoon ay repère am daf ko perdre. Mhm. ñi nekkoon ay référence am nekkatuñu ay référence am. Mhm. ñun xool di roy ci ñoom xoolatuñ ci ñoom royatuñ ci ñoom léegi ñan la ñuy roy. Mhm. mooy ki tedd. ci xaalis. ki am maam ki yor am am. peu importe nu mu ko amee mais la fin justifie les moyens. waaye léegi bu fekkee ne yow nit ki wax nga ko na ko boo jaayee drogue ñëpp xam la ci. mais amul problème tabax nga ci ay immeuble yaa ngi dawal oto bu rafet yaa ngi may nit ñi xaalis ñu ne la ku tabe la da ngeen a soxor bu dee jigéen bu nekk su naka sudul noonu ñu ne la tedd na mi ngi teral yaayam yóbbu na ko màkk alors que ñooñu la ñuy jël def leen maanaam référence alors que démb ñi nekkoon référence yi ci koñ bi pend mooy grand bi jàngoon yor ay diplôme am nekk benn référence ci koñ bi même bu amul liggéey da daan gis grand bu nekk ci koñ dajale mille diplôme boo moytu c'est une façon de parler amul sax liggéey mais mooy référence koñ bi mhm. jàng na ba heure jàng jotee souvent sax moom la ñuy dénk xale mu leen di jàngal cours du soir koñ bi ku defaan dara bu ñëwee même bu waxul sax yow dañ koy ruus léegi ñooñu fu ñu leen gis na dimbalin say diplôme yu bëri tekki woo mhm. jamono ji koo dóor doomam koo fekk sa voisin boo fekk doomam na ko surul noonu nga dóor ko tey àddina tukki papa may taxaw na la mais man sama doom sama loxo muf ko laal mhm. man mhm. jur ma doom bu ñuy dóor mhm. ñun ñii ñëpp bi ngay nekk xale sa ay doom ci lu ko neex dóor nañ la ba ngay bëgg a dee mais léegi looy dégg bon man sama doom sama loxo du leen laal maanaam style ak façon d'éduquer boobu noonu ñu transcender dem jëli ko ba fi yar yar nga xam ne moo bi rek dalay renvoyer ci dóor mais société boobu moo produire mag ñi mu am tey dama laa bëgg bëggoo ma ma jël sa bakken li nga nekk ba ko bawu ma ko ma jël sa bakken jox ma li nga am joxoo ma ko ma jël sa bakken maanaam da nga dem ba bakken nekk lu oyof Sénégal boo fàttalikoo boo déggaan meurtre tey parce que di nga toog cinq ans dégâts de meurtre. justement moo tax ñenn ñi doom bi instant bi cheikh bi baaxawul di gis li ñëpp a tiit. te léegi meurtre. ci man mii di wax ak yow cheikh bi gëj naa ne la li may am fit yëpp ñëpp a tiit ñëpp a tiit. ñëpp a tiit parce que moment yow mun nañ jël sa bakkan ci mais kenn nekkatul en sécurité. Mm-hmm. loolu nag daf may renvoyer benn waxu bu ma sama benn nijaay daan wax yàgg na ndeysaan. daf daan métaphore na ma booy fii jamono ngi ñëw mën a ko mu ne ma nit dina tëb sa kër gi fekk la nga ndékki mu dóor la nangu sa mburu mm-hmm. su ko waxaan may ree wallaay wax na dëgg mais boo demee ba ci biir tey mooy fi ñu toll muy mhm. société en perdition société boo xam ne amul ay repère mhm. amul ay référence li ñu jël def ko repère ak référence du repère mhm. mais pend ñun suñu nattu bi gën a mag mooy les politiques pend Sénégal mooy société boo xam ne trois cent soixante cinq jours at bi ay politiciens yoo ñuy amer ñu maanaam ñooy occuper les devants de l' actualité boroom xam-xam du wax psychologue du wax ñi xam maanaam société ñi xam doomi aadama mën ko jàngat kenn du wax politique yi rek kay wax. Mhm. chaque jour ñu indi ñu débat politique. Mhm. mais lorsque les politiques occupent les devants de l' mhm. mais politique yooyu ñoon na Sénégalais yi di xool. te ñun suñu politique yi li ñu woon mooy lan peu importe li ma la wax tey suba mën naa ci génn ngir la ma caay am mooy société sénégalaise dañ ko tënk ci xam nga lan la paraître. ak li nga xam ne mooy am-am. à partir moment mais yow bu mu la bett yëpp di am. en tout cas man bett na ma bettu ma. Mm-hmm. ndax man damaa gëm ni société bii nii population bi fi nekk. fekk waxtaanee wuñ ko fekk orienté wuñ ko pend lu ne mën na fee am. Mm-hmm. man moom sincèrement yi am bettuma yu bëri. mais li nga ci dégg nii yëpp donte ni l'enquête suit toujours son cours ak ñi ci placé tout à l'heure ah, sous mandat de dépôt. merci version yu bëri yi on a un sérieux problème du tey laa ko commencé wax maa ngi ko commencé wax ci jamono yu arrestation wu détenu politique yi. version yu bëri yi nga daan dégg. diw cocktail molotov diw lii laa leen ne mhm. Sénégal mooy seul pays boo xam ne crime day am wala meurtre wala fait le procureur doo ko dégg. ko dégg. ay nit a ñuy jox ay version looloo ñu indi lii tey ku nekk enquêteur nga fi mu toll man sama kër damay génn ku nekk tey TikTok nee na diw nee na diw nee na mais xam nga lu tax loolu le procureur génn. Mhm. France bu liy amoon procureur génn na le jour ji ne la lii crime passionnel la. vol nangam la lii nangam li lii mooy orientation bi ñëpp xam. Mhm. mais procureur bu Sénégal duñ wax kan la ñuy waxal laa bëgg a xam. ba tey dégg ñu ko mu wax ci. heure bii yow procureur waroon na génn na la l' enquête est bouclée wala fii la toll wala orientation piste bi lii la. mais tey tout un pays en haleine kenn mënu la jox version loolu ko xaar ci yi nga xam war nañ ko apporter. mais loolu dafa war a mais pourquoi France par exemple le procureur bu crime amee midi midi treize wala midi midi et quart antiterroriste la wala lii la wala la. mais Sénégal léegi dans ce cas là finalement est ce que ñi ciy wax lu leen lu leen wóorul war nañ leen poursuivre en justice non. parce que parce que parce que amaana oui mais parce que amaana tey jii su fekkoon procureur ah. waxoon na xëj na ku ci nekk di nga xam. bien sûr mais am na ñoo xam ne mënoo leen topp ñenn ñi ñëwuñ ci réew mi par contre man dégg naa ay déclaration yoo xam ni ay nit wax nekk ci dëkk man dama jàpp ñoon dañ leen war a woo. Mhm. dañ war a woo. Mhm. dañ leen war wala même boo leen entendre mu nekk benn mesure dissuasive bu ragaloo ñeent en tout réew mi daal gis nga problème bii pend mhm. dafa woone manquement yi am ci réew mi ci lu bëri. Mhm. bu dee bàyyi nga ci xel. waaw mbir mi war na la ñun suñu société bi ni mu feebaree. war na la manque de communication entre l' appareil judiciaire laa mun a wala la parquet xaw ma daal nu ma ko mun a wooyee ak population bi Sénégal ñun dañu tàmmal habitude boo falee nit du communiquer xam nga histoire bi wane na loolu manquement su procureur génnoon jox ñu fee mais et puis suspense mën na dem ba jur ay fayuwante looloo ci danger. toog kenn génn na version bi yoo tax ñu rey sa doom wala sa mag wala sa rakk wala diw la nga daw fekki diw moom mu fayul sa bopp loolu mënoon na am dañ ko éviter de justesse est-ce que bu procureur waxoon doonuñu woon dimbali ci yooyu yëpp man li ma doon ragal bi coow li jógee mooy ñu dal ci kaw koo xam ni innocent la. Mhm. parce que mujj gi version yu bëri na. dëgg la di def dee wa bëri na. dans mhm. un pays sérieux gis nga Sénégal li ñu war a remettre en cause di ko laajte mooy ndax dëgg-dëgg on est dans un pays sérieux ndax dëgg-dëgg ñun état la loolu moom gëm naa ne wane na ni réforme yi fi war a def mais bëri na xóot na lool lool lool lool en tout cas histoire bii daal. wane na manquement yu bëri ci société sénégalaise bi vraiment. Mhm. Mm. alors à rappeler que ni euh, depuis lors ñu ngi leen doon euh, enquête bi mu ngi doon wéyati. Mhm. tey nag lañ janoo ki nga xamante ni moom moo di procureur ginaaw mhm. boobu la janoo nag euh, procureur placé na leen sous mandat de dépôt. lu ñu mel nekk incha allah lépp lu ci ruusandi ci xibaar rek Sénégal seet leen ko toppal. mu leen ko doon toppalee euh, boobu ba tey ak appliqué na jusqu'ici ay présumé meurtrier lañ Cheikh Ousmane waxuñu ba tey ni ñoo def voilà jusqu'à présent c'est important euh, de le préciser beneen fay li nga xamante ni moom moo ñeel euh, actualité yi ki nga xamante ni moom moo di Lat Diop nekkoon fi jël école Bonas xam ngeen ni ce matin dañ waxoon ni euh, teg nañ ko loxo euh, mais nag lu ni mel euh, bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi nga xamante ni suñu ay naataangoo taataan nañ ko ba partage ko nee nañu moom du plus dañ ko dañ ko dañ ko jàpp mais